patrimoine daa mel ne dara génnu ci ci la ñu mën a laal ak li ñu mënta laal boo nee patrimoine xam xel dina dem ci aw dundin dina dem ci aw nekkin dina dem ci aw defin dina dem ci mbind yu nga xam ne sëriñ bi bàyyil nañ ko fi patrimoine daanaka day laal pàcc yëpp boo ko waxee mooy laal nga xolu xolu nit ñi àdduna toll na ci jaxasoo sëriñ Muntaxa ci mbaaxam ci yërmandeem wax na solution bi solution bi mooy sëriñ Touba. bi ñu demee ci président la république ci ndigalu sëñ Muntaxa dafa jël ab dogal woo ministre de la culture Aliou Sow ne ko patrimoine iconographique bu Serigne Touba nañ ko dugal ci patrimoine national ndax Serigne Touba réew mépp ko bokk loolu nag ñi ngi préparer arrêté bi service technique yi ñu ngi ciy liggéey ak waa ministère ba jàpp nañu ne balaa ñu yegg ci bis boobu dina sont njariñul loolu mooy day nekk li nga xam ne dañ ci mën a jog gi ngir loolu ñu mën ko dugal ci patrimoine mondial de l'UNESCO